jërë ngeen jëf yéen ñi nga xamante ni yéen a tàmm euh, lii di mi TV dalee nag jàmm si seen deuxième numéro bu seen euh, émission Actu Rewmi ñuy waxtaan waxtaanee wàllu actualité saa su nekk rek donc kon ni ñu ko defee saa su nekk rek ñuy waxtaan li nga xamante ni moom moo gën a fës ci actualité bi réew mi ak bitim réew ñu teg ko fii ci indi suñu li nga xamante ni mooy suñu point de vue mais saa su nekk rek ci ànd ak sama chroniqueur muy monsieur Jean Fall euh, monsieur Fall maa ngi leen baax baax. maa ngi lay fay Mor. di kontaan encore une fois ci deuxième numéro bi nga xamee ne mooy actu réew mi. voilà donc euh, actu réew mi ni ñu koy defee saa su nekk rek dañuy jël euh, sujet yi nga xamante a euh, faar ñu waxtaanee ko tey yi nga xamante ne ñuy waxtaanee muy kii di professeur Souleymane Mboup mi demande nañu daal di confiner li nga xamante ni moom mooy Dakar ndax virulence su virus bi nga xamante ni moom fi nekk jamono jii waaye tamit dinañ wax li nga xamante ni moom mooy lu ñeel wàllu li nga xamante mooy flambée prix ba léegi dem ci li nga xamante xamante ni mooy wàllu coronavirus bi ci nga xamante moom mooy bisu xasida yi wax nañ ko jëmle ko ci ay tenues yoo xamante a moom mooy wàllu accident yi nga xamante moom moo am ci semaine bi ñu wax ne en li nga xamante moom mooy une semaine am na lu toll ci ci euh, fukki nit yoo xamante ni daal nañu génn àdduna ci li nga xamante ni moom mooy euh, boobule euh, accident mais laataa ñoo dem ci waxtaan bi rek dañuy dem ci li nga xamante ni moom mooy suñu titre li nga xamante ni moom mooy réew mii à la une de réew mi quotidien troisième vague Covid 19 l'armée du Khassida waaye tamit beneen titre boo xam am na ci muy accident de la route 23 morts en une semaine toujours dans Rewmi Quotidien meurtre de Fallou Ndiaye deux suspects arrêtés après Eumeudy et Ahmed Thiou un euh, de Wally Seck en prison euh, toujours Rewmi euh, quotidien avec Rewmi Sport avec Super Coupe d'Europe Mendy et Chelsea sacré aussi après Liverpool Manchester United Ismaïla Sarr dans le viseur des sports loolu moo nekk li nga xamante ni moom moo nekk li gën a fës ci réew Rewmi quotidien hmm. donc monsieur dañuy commencer ak li nga xamante ni moom mooy sorti wu docteur Mboup mi wax ne Dakar dañ ko war reconfiner parce que fi nekk nekk ni virus bi commencé naa bëri ci biir euh, dakaar ak li nga xamante ni moom mooy euh, delta bi donc yow ban appréciation nga def ci li nga xamante ni moom mooy ñu confiné waat Dakar alors que mu nekk ni ñi ñi ngi faire face à des problèmes d'augmentation des prix si li nga xamante moom mooy denrées premières nécessités yi. jërëjëf Mor ku mel ni professeur Mboup ak euh, ni ñu ko xamee. Hmm. mu nekk taaru Sénégal référence su Sénégal. nekk virologue boo xamee ne euh, àdduna bi yépp dañ ko naw mm. su demee ba wax noonu war nañu mën a toog xalaataat ci mm. xool naka lañ ko war a mun a defee ba nga xamee ne li nga xamee ne moom la ñuy dund fi ñu toll nii mu bañ a gën a méttiti ba nga xamee ne dina tax ba nit ñi di mun a xalaata wàcc sax ci mbedd bi mm. ndaxte dafa am lenn loo xamee ne wax nañ ko ci suñu émission bi jiitu ñu ne di ne Sénégal dafa amul kuréel boo xamee ne bu demee ba li professeur Mboup noonu daal di euh, jël euh, di ko euh, mbébét di ko dénoncer diagnostiquer situation bi xam li ci nekk ba wax ko mm-hmm. te ñun nee naa la fi bërki démb que ni amuñu benn kuréel benn commission boo xamee ne dañ ci tënku. commission boobu bu xasee ba sanitaire boobu bu xasee ba taxaw. gouvernement dootul am chef religieux dootul am. dégg ñoom ñooy xool seet lan moo gën ci askan bi ñu wax ko ñu daal di jóg def une solidarité national def benn say xeex mbas mi. mais léegi fi mu nekk nii professeur Mboup toll na ci dimension yoo xamee ne. ba mu jógee bay wax président de la république waxam ba mu ngay nekk euh, lu ñuy jël taxañ ko sànni ko ca euh, poubelle ya mm-hmm. wala ñu sànni ko ca géej ga mm-hmm. te fekk waxam mm-hmm. dafa nekk wax joo xamee ne war nañu tiital liñ doon wax war nañu euh, angoissé ndaxte dañu toll ci angoisse boobu toll ci waxtu boo xamee ne wax nañ ko ca émission bale daal di ne dafa am un flou total boo xamee ne ci jafe-jafe yi nga xamee ne ci la ñuy nekk xamatuñu kan mooy wax dëgg kan moo dul wax dëgg dégg nga muy def rek comme ni ma doon wax ci Sénégal nga xamee ne balaa ñu lay déglu rek nga dégg woyaa yooyu mais est-ce que aussi war nañ toll foofu parce que euh, à chaque war di wax ñu Sénégal dëkku yërmande xool li nga xamante ni mooy aspect social bi alors que am na ñenn ñoo xamante ni ils sont ils en danger parce que ñi nga xamante ñoo nekk ci kaw ñoom bu mbir mi euh, demee ba toll bi niveau bi ñoom ils peuvent avoir les moyens de se protéger mais ñu nekk ci ci baa ñoom ñooy am problème est-ce que jotul fi mu nekk nii ñu jéem a xool naka la ñuy forcer les choses au au Sénégalais je dis pas à la euh, parce que si on parle de 1600 euh, fois beaucoup plus virulent ci li nga xamante ni mooy virus bu njëkk bi est-ce que jotul nekk nii ñu nekk ñu nekkaat état d'urgence sax bu gën bi nga xam ne nekkoon ci mois de mars bi ñu mais loolu balaa ñuy mun a balaa ñuy mun a yegg foofu mhm. il faudrait que gouvernement bi moo nekk suñu tuteur gouvernement bi moo ñuy gouverner mhm. gouvernement bi ñuy gouverner war na am fu muy sukkandiku mhm. bu fàtte ay intérêt dégg nga daal di mën a tënku ci li nga xamee ne moom la euh, professeur Mboub wax noonu le te professeur Mboub moom kenn kese il ne fait pas l'unanimité de gis nga ba ñuy jóg sax ba pandémie bi di commencé moom sax bokkul woon ci ñi nga xamee ne ñoom ñoo nekkoon ca kuréel ba fële dem nañu ba nga xamee ne même gis nga professeur Seydi bu mm. génn mu jig bu génnee wax sax ñu saaga ko mm. waaw loolu réew moo xamee ne loolu mu ngi ci mu am ñoo xamee ne dañuy def yëfu politique dégg nga du laisser pourrir mm. politique gu bàyyil mu sedd mais euh, responsabilité bi dafa bokk ci responsabilité gouvernement bi nga xamee ne ñoo taxaw waxuma ñu ñooñu ci sàll moo leen jiite. Mm. dafa am foo xamee ne nag bu demee ba ku toll ni professeur Mboob su waxee war na ko sigil sargal ko daal di woote ñu waxtaan ci loolu waaye ba mu ko waxee ba tey presse bi nga dégg ñuy wax. Mm. dégg nga ak yeeg yooyu am na ci ñoo xamee ne sax pour des propres intérêts ak yooyu ñu ngay dem di liggéen ji ay certificat de résidence. xaale mm. faale faalewuñu ko mm. sax. mais vu la situation actuelle ak euh, ni dëkk bi toll. ak fi nga xamante ne génn y avait 1000 milliards yoo xamante ni ils injecté def na ko ci. mbir mi mujjul fenn. Euh, xaas boobu kenn xamul fa la jaar donc est-ce que on si on revient naan euh, on parle de confiner Dakar est-ce que ça risque d'éveiller benn benn tension bu amoon boo xamante ne. Euh, mbas mi andi woon na ko mais aussi am na yenn frustration yu ko andoon euh, bi il n'est xam na ne euh, tôt ou tard ils vont ils vont se lever et seen bopp parce que ils ne sont pas prêts à à faire face ci ay ay confinement ak ay xamante ne ay état d'urgence la. voilà comme xam nga comme ni ñu ko waxee rek ne nga état bi ñoom parewuñu hmm. mais état bi ñoom bu ñu parewul pour daal di conduire. la politique de santé de populations bi tax ñoom ñu teg leen fii kon bu boobaa nag da ngay gis que ni réflexion bi dafay jéggi dayoo. te li nga xamee ne moo doon wax naa la ne pandémie bi du ay milliards mille milliards du loolu moo koy régle pandémie bi lan moo koy régle ak lan mooy régler mbas mi moo dikk ni il faut que ñu daal di mun a toog ñi nga xamee ne seen xam-xam dafa màcc ci loolu. ñu daal di taxaw daal di wax ne fii ngeen war a jaar yaa ngi dégg. Hmm. bu jaar leen fii. dégg nga gouvernement bi daal di taxaw ne bon ñii wax nañu ne comme ni ñu ko doon defee bu njëkk ba nee nañu ñu jaar fii donc il faut ñu jaar foofu. Hmm. parce que fi mu nekk nii euh, wax naa la ci suñu émission bu njëkk ba daal di ne la bu ñu ne la moo discipline rek moo lëjal africain moo lëjël nit ku ñuul. Hmm. discipline rek boo ne discipline rek loolu la jël ni ko da ngay ñëw sax dugg ci benn institution nga daal di gis ñëpp nga gis kenn ku jógee fële jaar na la daal di ñëw taxaw daal di indiqué yooyu discipline dafa nekk loo xamee ne moo gën a virulent virus bi nga xamee ne moo ñuy dugal nii te virus bi dafa langaamu ci discipline. pour rey ñu. donc nag bu fekkee ne ku ñuy euh, gouvernement bi président de la république ñi nga xamee ne ñoo responsabilité. wér eh, gu wér wér gu yaramu askan bi ñoo mënu la jël seen responsabilité bu boobaa nag nañ leen xaar ak suñu Euh, arme yu redoutable yi nga xamee ne moom la wax rek suñu carte électeurs yi. Mhm. ñu jëlee leen fi indiwaat ñeneen ñu gën a compétent. Ah, mais est ce que est foofu si si loolu ko mën régler parce que aussi am na leen lu am muy euh, boo nee africain on parle de sénégalais qui est parce que ñi nga xamante ñooy suñu pays yi ñuy mhm. jege lu mel ne Guinée. Mhm. ñoom nee nañ bu fay dugg léegi nga euh, passer par li nga mooy passe sanitaire bi. nga andi ne vacciné nga. donc est-ce que nekkul ne c'est le c'est le sénégalais qui est qui est qui naturellement indiscipliné moo waral du leen mën a def yéen dañ leen dañ leen laisser aller luñ ci góobee gar ko comme ni ñu waxee saa su nekk. naturellement indiscipliné amul. mu wax la ko mu jeex naturellement indiscipliné. Mm. kooku ci gêne nit ku ñuul la nekk. Mm. da ngay xool sax ndax nit ku ñuul bi moo indiscipliné wul. Mm. parce que tout le temps dañuy xaar pour que. tubaab bi Europe def affaire bi ba pare ñun ñu daal di suivre bañ nañ ko ba ci produit de consommation yu ñu jël sax da ngay jël gis ku génne benn euh, pastèque fii di ko jaayee mille francs nga daal di gis pomme bu jógee Maroc di jar ay 200 francs dégg nga te boo xoolee ñaari fruits yi boo leen pesé ñaari fruits yi ci goût ba ak yeeg yu mel noonu xëy na euh, ci aspect yi nga xamee ne moo war a indi kii bi yëpp euh, kii parce que c'est une question de politique mm. dégg nga de politique dégg nga yooyu yëpp ay de prix donc ce qui fait fi ñu toll nii il faut que les forces de défense et de sécurité ñu daal di toogaat dégg nga di yar askan bi ñu delluwaat daal di ne leen fii ngeen di mun a kii man am na benn système boo xamee ne sax euh, maa ngi koy gis Europe ñu ngi koy jéem a appliqué te xam naa ne à partir de maintenant ci la ñu koy appliqué parce que léegi nag bu fekkee ne nee nañu jóg leen ngeen dem ñàkku ji ku ñàkkuwul gratuitement léegi boo bëggee ñàkku da ngay fay xanaa booba duñu wax ne waaw mu ngi nii ñu ñuy fayloo ñàkk yi ba pare nit ñaa ngi dee. Mhm. comprendre nga donc dafa am lenn loo xamee ni mënuñu toog euh, éternellement di ko wax. dafa am lenn loo xamee ne professeur Mboup muy wax na ne euh, ne ñu ko fi ne Dakar ndax affaire baa ngi jóg parce que malgré ñu ngi wax ne takk leen masque yi dem leen ngeen ñàkku ji. malgré que ñu ngi wax yooyu mais dafa mel ni ne ba sa xalif généraux yi di taxaw di ñaan dégg nga dafa mel ni nit ñi keroog la ñu gën a nonchalant dégg nga gën a kii yaa daal di ne dañuy wax rek. Mm-hmm. ba pare ba pare chaque à chaque jour nag ñuy xaar ku dee rek pour gën ñu groupe bu ñu deeyee man defe naa tiitaange bi moo leen di moo leen di teex ba ñu groupe mm. wala tiitaange bi mooy tax ba nga xamee ne bu amee ku dee rek nga daal di gis ñoom ñun ñu dankaloo ci benn oto daal di dem fàtte ne ki dee mm. li ko rey euh, moom lañ leen di wax ne il faut que ngeen daal di euh, kii diggante bi nga xamee ne moom la wax ne mm. temps d'incubation bi professeur Mboup lay reprendre toujours quatre jours la dégg virulence bi dinañ ko par mille et ndax voltage bi mot na mille et mm. ci ci ci kii am. et et bi jour bi quatre jours au lieu de six jours. voilà quatre jours au lieu de six jours. Mm-hmm. alors boobu waroon nañu toog nag seetaat suñu bopp. Mm. te toog seetaat suñu bopp nag dafa war a commencer ci li nga xam ne ne rek moo di euh, ñu daal di euh, am nañu ay kilifa kilifa yooyu ñu daal di jóg wax ba affaire bi. ëpp euh, du ñu xaar ba mu ëpp ñu daal di soog a jóg nag daal di ne. nañ leen def nii nañ leen def nii nañ leen def nii. Mm-hmm. parce que a pas un modèle sénégalais il faut que li nga xam ne ne moom moo tële sénégalais mooy def benn say pour xeex jàngoro bi. Mm-hmm. def benn say pour xeex jàngoro bi. Mm-hmm. pour xeex ko est ce que ñu ñu woon aussi sénégalais parce que sénégalais lu mu gisul du ko gëm est ce mu nekk nii ñu télévision RTS war na ko mën def euh, Rewmi TV war na ko mën def ñeneen ñi na ko mën def dem war Euh, feebar bi naka la demee si nit ki au moins les sénégalais puissent avoir benn aperçu ci feebar bi est ce que bu ñu defee loolu sénégalais au moins dañuy xaw a gëm mais fekk dañu ko gëm à ne feebar bi il est là et ça existe. ma ne xanaa defati ndaxte bërki démb rek réew mi TV invité na fi koo xamee ne dafa am mbas mi ba wér. donc symptômes yeeg. les euh, comportements post maladie ak yëpp ñëw na expliquer ko. dégg nga ah, chaque jour nga gis ci journaux yi am kenn ku ne amoon naa ko am kenn ku taxaw fële nga gis réseaux sociaux yi daal di taxaw boo ko amee da ngay am impuissance doo mën a am lii da ngay am lii mais xam nga xam nga gis nga nag du dañuy toog rek daal di ne euh, il faut que ñu def lii il faut que ñu def lii il faut que ñu def lii dañ tollootuñu fu ñuy waxee ne nañu def lii. donc on doit on doit forcer les dañu war a jël affaire yi teg ko. donc est-ce que jotul ñu jël armée bi jox leen vaccin yi ku ne fekk fekk sa kër cuuj la. non non non du ñu fekk sa kër cuuj la <laughs> mais c'est tout simplement dañuy fexe ba nga xamee ne ñu xam ñi bëgg a dem ñu dem ñi bëggul a dem ñu bàyyi leen ak seen ah, seen sago. ñi ñi bëgg a dem ñooy ñooy ñooy ñooy mettre en danger ñeneen ñi nag. ñeneen ñi bëggul dem ñooy ñooy mettre en danger c'est ce qui ñi nga xamante ne kii nañ. ñi bëggul dem ñi bëggul dem dañu la mënul a jox sax argument bu fës bu taxaw ndaxte. Euh, mosuloo euh, vaccin yi bi ñu commencé ba léegi vaccin yi bi ñu commencé ba léegi boo su dégguloo benn ba biy jóge Chine wala di jóge naka la tuddati euh, fële ca mm-hmm. Inde yi Inde yi gisuloo ci benn bu ñu ne fii la kii sauf Johnson Johnson bi nga xamee ne mm-hmm. dafa jékki-jékki ñu daal di jël jaxase benn substance dugal ko ci biir mm-hmm. dégg nga daal di jékki-jékki naa di ne moom fi ñu toll nii am na lenn affaire bu dugg ci Johnson Johnson ba. Mhm. léegi nañ arrêté loolu. Mhm. nañ defaat ay kii tey gis nga léegi États-Unis mu ngi jóg di maye ay kii ak yooyu ah, États-Unis. ak yooyu mais mais suñu compatriote Al Haïdar il a été évacué parce que am thrombose ah, ah, ndax vaccin bi. waaw mais mais le xoolal xam nga dafa am un si dafa am loo xamee ne dama koy waxaat mu daal di kii man jël na vaccin bi. Mm. yaa ngi dégg. te man wóor na ma ne bu ma dóoroon troisième vaccin bi dama naan cocc di la xool. Mhm. waaw ci li ma yaakaar. Mhm. ndaxte am naa force de résistance boo mhm. xamee ne kii mais dafa am lenn loo xamee ni mënuñu ci toog di ci spéculer. non di que ne euh, yow yaa ngi sol. 41 man maa ngi sol quarante 42 système de résistance bi ma am amuloo ko. kii dafa bleu kii wees kii dafa ñuul kii xees dina am ay quelques rares euh, conséquences yoo xamee ne dafay am te loolu ci métabolisme ku ci nekk métabolisme bu nekk ci luy dund di noyyi am na nu muy réagir par rapport ak un corps étranger bu dugg ci biir yaramam mm-hmm. alors à partir de ce moment là mënuñu toog fii dégg nga di wax naan euh, il faut que ñu mën a toog dégg nga euh, kii daanu na fii kii am na thrombose moom mu ngi tudd Ali man maa ngi tudd Jean Fall alors moom daanu na man nekku naa daanu ma alors où est problème voilà voilà donc mu nekkoon sujet bi ñuy wax ci wàllu euh, lii di euh, kii di professeur Mboum mi wax ne dañoo war a confiner Dakar donc dégg ngeen li nga xamante ni euh, monsieur Jean Fall wax na ko ñu dem ci beneen sujet rek muy li nga xamante ni mooy coowal 10 milliards yi 10 milliards yoo xamante dañu ko def ci ay tenues confectionné ko pour école Sénégal ñu étalé ko sur 3 ans année bu nekk ñu jël benn somme dugg ci je pense 3 milliards chaque chaque donc yow ba nga déggee loolu est-ce que jàpp nga ne Sénégal toll na foo fu ñu war a jël 10 milliards di ko def ci des ci des tenues yoo xamante ni c'est pour les xam nga man ba ma déggee affaire bi ba pare ak argumentaire bi topp ci dix milliards yi. Mm-hmm. te ba ma nekkee école ba léegi. Mm-hmm. ay tenue école. defe naa ne loolu fekkul yow nga juddu. Mm-hmm. ay soboko. dégg ak tenu tenue yi bu ñu daan sol ak tenue yu bleu yoo xamee ne dañ ko daan sol ak kii yu mel noonu te mbirum tenue école privée bu nekk sax. am na ñoom ñooy am ñoo xamee ne ñoo leen di confectionner li nga xamee ne moo di ay euh, kii bi moo leen di confectionner ay tenue te tenue yooyu nga gis ñu leen di confectionner dafa nekk loo xamee ne. booy fay sa inscription ak yeeg yooyu ci la ñuy calculer loolu yëpp nga fay ko ci biir instruction bi ci biir kii bi mm-hmm. ba nga xamee ne ñoom ñu ngi doon décider loolu fekk loon situation pandémie bi yegg si fii mm-hmm. te ñoom bañ ko doon décider ba ñuy décider affaire ak di dégager ak di dégager milliards yi c'était avant la pandémie parce que boobu fekk na école bi jaxasoo na te ñu ngi bëgg a jéem a daal di ordonné waat naturellement école yi tegaat li nga xamee ne mooy euh, teg ko ci raay bi. Mm. ndaxte euh, école boo xamee ne tous les ans. da ngay gis que ne ñetti weer la élèves yi di jàngi da ngay gis que ne tout le temps les syndicats naan la plateforme bi fii la jaar ak yeeg yu mel noonu ba nga xamee ne à l'heure actuelle. Mm. dégg nga conséquences yooyu nga xamee ne des grèves répétitives successives de ne pas appliquer les mesures yi nga xamee ne def nañ ko ak yëg yooyu dafay yokk nag triche bi euh, triche bi daal di gën a bare parce que le niveau scolaire est redevenu très bas boobu benn point la deuxième chose ma foogoon ne nag ma foogoon ne euh, Macky Sall suy dem bay euh, nommé ay ministres yooyu ministre boobu di toog di wax naan damay joxe dix milliards parce que dama ci euh, régler le problème de discipline et d'éducation à l'école ban tenue la fait que ñëpp solondoo tenue ça veut dire que ni euh, problème de la discipline est, réglé te jàngaloo leen morale instruction civique ah instruction civique nga ne leen école yore ay tenue bu bu école ubbee foo tourner gis Euh, fasu école bu nekk am na benn tenue boo xamee ne kii na ak yeeg yu mel noonu bu fekkee ni loolu la ñu bëgg a def mais en pleine pandémie <laughs> mais li ñu war a régler mhm. mooy le le taux de charge horaire mhm. yi nga xamee ne moom la ci la diplôme yi reposé wu mhm. moom la ñuy wàllu quantum horaire bi nga xamee ne c'est pas réglé dégg nga xale yi da ngay gis da ngay wax ak ñoom ne leen bon je vais à l'école mu daal di ne la mais kii chinois la may làkk wala français la ma lakk donc yooyu yëpp bokk ci li nga xamee ne dégg nga enseignants yi taxaw fële naan euh, suñu plateforme ba suñu nga xamee ne moom lañ supplémentaire bi heure yi du ñu ko fay la ñu doon surveiller ca examen yi du ñu ko fay dégg nga ñu jékki-jékki gis nga même ci BFM bi. <laughs> am na benn tricherie boo xamee ne euh, jom euh, li ñuy wax ne taxul sax la ñu def kële médiatiser ko ak kii yooyu taxul sax nit ñi daal di amaat jom pour bañ a tricher mm-hmm. parce que vraiment dëkk bi dafa métti dëkk bi dafa dem ba nga xamee ne dañu sooxeel njàng mi ba ñu sooxeelee njàng mi dégg nga bon ñi yaakaar nañ ne boo demee France jàngi dellu si waat ñëw nga daal di taxaw dégg nga ñu teg la ci télévision bi ak sa kii nga daal di ñëw taxaw di wax naan ay mm-hmm. instruction civique ak éducation kii joxe 10 milliards. Mm-hmm. bu fekkee ne dañ bëgg a enrichir ay nit mais nañ ko wax mais li nga xamee ne moom la professeur Mboub wax daal di ne euh, delta yi ñëw ci gannaaw. seen force di na a mille cinq cent nangam nangam mais nañ koy injecté foofu ba pare daal di def ay kii daal di favoriser la formation et la recherche. Mm-hmm. pi bu amul loolu du dox. donc wax nga ko léegi nga ni fekkee dañuy chercher à enrichir benn personne parce que dafa mel ne euh, mbir mi foofu la jëm parce que ñu nekk ci jamono mbas nekk ci jamono ji ngi wax naan fayaguñ leen seen affaire ay correction mhm. ñi naan am nekk mhm. ñu ñu wax 10 milliards pour pour pour confectionner euh, des tenues alors que avec avec 500 millions nii ñu defaat benn genre formatage li nga xamante ne moom mooy suñu système euh, éducatif parce que

affaire yi dañu ñëw taxaw nii dangay dugg ci système éducatif bi soo paree daal di ñëw taxaw di wokk bopp di xool fan nga war a mun a dem pour mun a jaay li nga xamee ne moom nga instruction bi nga jël à travers le système éducatif dem nañu ba daal di jóg taxaw dégg nga euh, événement yi fi amoon mois de mars ñu daal di jóg génne ay milliards daal di ñëw taxaw ak kii gu mel noonu pour rek daal di ne war nañu mun a jox xale yi ay xëy mais xale yi mënoo loo leen jox xëy fekk yaa ngi yore dix milliards ma jox rek exemple euh, état bi. ne leen dix milliards mun ngeen ko yore mais dix milliards yi balaa ngeen koy mun a fructifier balaa ko xale yi di mun a bénéficier il faut que ngeen jël xale yi ci boppam daal di leen defal une formation professionnelle encadrer leen dégg nga defal leen formation professionnelle. encadrer leen dégg nga daal di leen defal suivi bi nga xamee ne moom ngeen leen di insérer ci tissu économique bi. Hmm. tant que mënuloo euh, def formation professionnel pour des jeunes tant que amul une politique d'insertion sociale et professionnel une politique de qualification une politique d'orientation dégg nga euh, pour mun a insérer euh, les jeunes dans le tissu économique dégg nga ba pare nga daal di jóg. daal di am li nga xamee ne moom mooy convention yooyu def avec le secteur privé et les entreprises soo ko deful dégg nga partenaires sociaux yi ñëpp daal di bokk ci biir mbir boobu boobule suñ ko deful milliards yooyu ñu doon yëkkati ca kii ba déggatoo ñu wax ci dara am na gis naa sax ñu jënd ci Jakarta Jakarta dafa mën a tax ñu ki fee Sénégal jëndum caaf rek jaay caaf mm. mooy emploi bu pérenne parce que ñun ñi nga xamee ne maire yi ñu daan jaay caaf seen doom yi seen sët yi foo la ñuy dem toujours ci kër yooyu di jëndee ci la caaf maire bi moo dàq jaay caaf donc foofu la la nu mu tuddati eh, la ñu mun a la liggéey bi foofu la pérenniser emploi des emplois pérennes des emplois yoo xamee ne comme parce que France da fay dem ñu daal di ne euh, établissement bi maamu moor moo ko moomoon chocolat bi ñu doon defar ñoom rek yore woon secret bi dégg nga de mille huit cent mille neuf cent ay yu noonu ba tey ji nii de mille vingt et un dégg benn sëtam moo fi nekk di defar chocolat bi comme ni ko maamam doon defee ñu jël breve bi denc ko fi mu nekk nii fii brevet caaf rek nga mun a denc dégg nga maire bi ko doon jaay ay doomam daal di kii brevet bi moom rek ko am mais c'est que kii la bu la c'est une touche divin bu la yàlla di defar pour que mm. jaaykatu caaf bi nga doon maire ba doon jaay caaf jaay na caaf suñu maam jaay ko suñu papa jaay ñu ko jaay ko suñuy sët boo demee da ngay fekk eh, koo xamee ne suñu sët moom mooy defar caaf mm. te fa nga xamee ni ñun fa lañ cosaanu dégg nga eh, ak fañ doon jàngee école primaire boo fa demee da ngay gis maire ba ñu daan jaay caaf bañ nekkee foofu en 1959 58 maire boobu waa këram ñooy jaay caaf ba léegi. te hmm. kër ga am na ay ministre rek ay kii yu mel noonu te kenn dindiwul loolu. léegi pour problème de l'éducation du Sénégal est-ce que dina yomb fi mu nekk nii parce que yéen boo fait de tricherie en en bac ñu ñuy ñuy en fille ñoo xamante ne dañuy dem di ay tanta hmm. donc est-ce que jotul fi mu nekk nii. Euh, yow est-ce que jàpp nga dina yomb ñu defaraat li nga xamante ni mooy système mu Sénégal parce que euh, tricheur bi kii na niveau bi léegi wàcc na léegi euh, li ñu doon jàng jàngatuñ ko parce que à l'école sax gisutoo fa la éducation civique gisutoo fa éducation morale ay ay ay découverte du monde nga fay dégg ay ay ay yeneen ak yeneen donc est-ce fu nekk nii dañoo dañoo jël benn méthode jàng boo xamante ni moom moom moo yóbbu suñu suñu système éducation ci dérive léegi nag suñu kilifa yi di chercher de gauche à droite di tâtonner la ñuy def ba jéem a la ñuy relever affaire bi. tâtonner nga wax tato ne moo fi nekk parce que fi mu nekk nii motivation bi nga xamee ni moom la ñu war a kii c'est que même soo demee France nga xool ni ñu dugalee. les technologie nouvelle dugal ko ci les systèmes d'apprentissage nañ koy defee ak kii yu mel noonu da ngay xool ne y a toujours euh, le socle ne change jamais li la base na change ba booy tabax kër da koy defal fondement fondation beeg fondement bi dafay kii mais su fekkee ne da nga toog ba si yàgg nga jékki-jékki gis benn système tubaab yi indil ñu ay système ñuy daal di toog di xool élite di xool ne da ngay ku gën a ku gën a aay mooy jàll ku gën a aay mooy jàll ñu dem ba ci biir daal di ne non non non on est majeur maintenant on est euh, c'est l'indépendance mm-hmm. maintenant il faut introduire le pulaar dans les mathématiques il faut introduire les trucs dans les mathématiques ñuy daal di ñëw doo gis doo dajeeg sax koo xamee ne dañ la ne agrégé la en mathématiques en pulaar mm-hmm. wala ñu ne agrégé en mathématiques en séeréer mm-hmm. da gis yooyu yëpp dafa nekk confiné dans les sous euh, langage linguistes yi nga xamee ne moom moo tax ba euh, fi ñu toll nii cacophonie boobu jaxasoo boobu mu daal di am une démotivation dégg nga nga xamee ne eh, enseignement bi enseignant bi buy jàng da nga ko war a mette ci condition yoo xamee ne du ñëw ba 10 heures jot bu waree jëndee caaf mu daal di ne damay dem jouer ji PMU wala di ñëw di leb élève yi ay xaalis parce que il lui manque 1000 francs pour mu dem jënd jikki donc yooyu yëpp dafa déprécier la valeur de l'éducation ba pare sax nit ñi dañu amatul les vertus yi nga xamee ne mooy góor góorlu fexe ba nga xamee ni ki man ba ma nekkee France ba ma daan jàng xam nga lu ma daan def dangay ñëw ne ma kaa ñu dem togg yi ma ne la man dama bëgg su ma demee Sénégal kenn du ma chef ba ñu ñëwee au change ñu bare ñu nga fa des mes amis ak kii yooyu am na ñu ñëwaat dégg mais bu ñu nee ba ci kii bi sama pare ah man de maa ngi nii amaguma liggéey de waaye samay diplôme a ngi nii ñu daal di xool xool leen ndax du attestation ñu daal di xool gis ne du attestation ñu daal di toog ba kii ñu daal di gis ne eh, France ba ma pare dañ ma doon wax ne ma yow mënatuloo dem sax Sénégal ndax da leen a romb de dix ans ma ñëw ba Sénégal jusqu'à présent gëmoo ko woon daal mais man bi ma ñëwee xam euh, après bi ma ñëwee Sénégal laa gis ni gars ñi dañuy jàng ba pare du ñu am fu ñu fu ñu liggéeyee dañuy jàng ba pare du ñu am fu ñu jaayee seen compétence. Mm-hmm. ma daal di dem jàng fexe ba nga xamee ni euh, boo jàngee ba pare dinañ la mun a trouver le règles élémentaires yi nga xamee ne ñoo la mun a permettre pour que nga def tes premiers pas dans le monde du travail da ngay gis ne lay wax ne la ONFP mu ngi fi. yaa ANPEJ Fatou Pej Maam mm-hmm. Pej ay kéeg mm-hmm. yooyu mm-hmm. ñuy wax noonu yëpp pour nga gis benn nit moom Papa Ndiaye bu mu jël inséré ko muy dem di yéeg yore otoom yore kiyam da ci tedd teddalal ci kiyam ak yooyu doo ko gis da gis ku dem ba def trois ans quatre ans affaire ba daanu <laughs> ñu daal di ne non yéen gisuñu leen kii yooyu ñuy xuloo ci tele bi ay politique ak ay affaire ak yu mel noonu loolu da gis Sénégal institution de dóor la quoi voilà ay dóor la du dóor am ñu yéene bi pour def ko. Mm-hmm. mais nañu ko nañu compétence moo fi am wala ba ñu ko jox ñoo ñoo amul compétence bi la ñu amul ak li ñu koy defee ndax mënuloo toog dans un pays boo xamee ni yaa ngi moom ñu ngi ko tuddee pour insérer ay nit. Mm-hmm. xam nga nu mu tudd l'enseignement post universitaire mooy boo paree sa jàng ba yore sa diplôme mais il faut que nga daal di jël ay benn politique. de formation professionnelle balaa ngay def politique de formation professionnelle il faut nga former des formateurs hmm. formateurs yooyu boo leen formé il faut que ñu bokk ci ay kuréel yoo xamee ne kuréel yooyu dafay am ay li nga xamee ne mooy ay cahier de charge yoo xamee ne dañ koy am ak état bi kii yooyu état bi di leen pousse pour que ñu mun a dem donc mais état bi du ñoom ñooñu dem di wutali liggéeyi nit ñi hmm. da ngay gis toujours rek ñu daal ne la amul benn pays bu état ba di joxe kii yooyu mais li ma la expliqué nii loolu la ñu xamul. Hmm. donc donc vous êtes d' accord à ndax à ce euh, ñu jël dix milliards def ko ci ay tenues wala boog d' accord nga mais ni ko bëgg defee moo boog moom moom. dama d' accordul ci mille milliards ay tenues. parce que moom tenue bi nee na tenue bi dafay tax ñu daal di régler le problème de la disipline le problème de euh, normaliser un tout petit les jeunes di leen canaliser dégg nga en leur faisant de par exemple ndaa dina leen ñoom ñëpp dañuy ñii dañuy sol vert ñii sol jaune ñii sol rouge ils ont dit jaune bleu marron beige cela ma ne vert jaune rouge la ñu de ñii bu ñu leen joxee vert ñii jaune la ñuy jël ñii jël rouge hmm. loolu mooy tax euh, discipline am hmm. te yow doo wax ne boo dajee euh, ku la gën a mag nga nuyu ko sukk nuyu ko jox ko cërëm ah yow côté boobu yaa ngi fa lajj ba pare bugg a commencé ci ay solo ki te euh, fi ñu toll noonu ngay gis euh, euh, tenue yooyu ñuy jël. di ko mm. di ko di ko di ko joxe ay milliards. man dama yaakaar ne li ma gën yaakaar moo di que ne c'est pour enrichir ay kii ay. ay militaires de première heure. ay militaires de première heure ba pare te aussi naka la tuddati loolu ñu bugg a jël yëkkati ko. ne dañuy soqali les artisans yi nekk ca biir kii ba parce que yooyu ci ci ci ci argumentaire bi la bokk. Mm-hmm. artisans yi ne ñu ko jël daal di ko fayee enseignement enseignants yi nga xamee ni depuis vingt ans. Mm-hmm. depuis trente ans. ñu ngi leen di laaj naan leen suñu convention ya ñu waxoon mm-hmm. président de la république nee na nañ ko appliquer ñu jël xaalis boobu dugal ko foofu fay enseignants yi. donc je pense que loolu leer na nañ jël xaalis boobu doo ko ci euh, wàllu enseignement fay li ñu war a fay yëpp je pense bu ñu ko defee euh, moo ëpp solo ay waxu ay tonne yu ni mel ñu jeexalee ak li nga xamante ni mooy wàllu accident yi ak euh, li nga xamante ni moom mooy message bi Serigne Mountakha joxe donc 23 morts en une semaine set yoo xamante ni ci autoroute Ila Touba bi lañ lañ gaañu démb ci ab accident boo xam ne dañoo mbëkk benn camion bu taxoon ci diggu télé bi donc yow accident yi fi nekk nii. Dakar au delà li nga xamante ni moom mooy euh, mbas mi 23 morts en une semaine ci wàllu accident euh, c'est quoi le problème Sénégal ba léegi indéficit mooy ñëw wala boog suñu ay aussi suñu problème euh, infrastructurel aussi da day imposé wu ci wàllu accident yi ni mel. waaw xam nga ci wàllu accident yi. Mm-hmm. dafa bari ay facteurs. dafa am le facteur humain. dafa am le facteur infrastructure mooy tali yeeg yu mel noonu. Mm-hmm. waruwaay yi nga xamee ne euh, dëgg gi ubbi nañ sax benn euh, centre de visite technique mm-hmm. la plupart des véhicules yi nga xamee ne du moins les trois quarts des véhicules dañu nekk oto yoo xamee ne daw nañu Europe ba tas mm-hmm. ñu indi leen fii euh, mu am nag li nga xamee ne beneen problème bi nga xamee ne moo ci nekk moo di mu am un problème de euh, prévention d'éducation de code de la route qui sa pose xam nga ne Sénégal Sénégal fi mu nekk nii da ngay ñëw ci benn angle priorité à droite mooy oto bi jóge ci droite bi ah dafay cédé ki nga xamee ne mooy jóge ci góosam ah mm-hmm. ko kii nekk à droite mooy am priorité mais da ngay ñëw gis ñooy xëccoog ñoom ba mbëkk ñu mbëkkante xam nga loolu indiscipline la dama mm-hmm. ñu doon wax ñëwati na beneen bi moo di ni prévention bi nga xamee ne moom la ñu war a def moo di que ne les forces de défense et de sécurité li nga xamee ne moom la ñu war taxaw dégg nga jouer seen rôle de dissuasion de répression d'éducation mm-hmm. loolu yëpp dafa am ki Sénégal rek ngay gis dëkk boo xamee ne duñ la jàpp ci limitation de vitesse mm. amuñu sax ay ay machines yu koy kii ak yooyu. du machine sax parce que dañu lay bindal euh, agglomération euh, interdiction de dépasser cinquante kilomètres heure. Hmm. nga daal di gis euh, gendarmerie taxaw nga gis benn kii benn nu mu tuddee ci kii ay romb la ak deux cent à l'heure ba mujj gi sax da ngay gis ni nga ni ni alkaati bi di defee nii wala gendarme bi nga romb dem dëkk bu amul limitation de vitesse. dëkk boo xamee ne gaa ñi dañuy dawal di dem di kéeg yu mel noonu euh, bu ñu ne bisim bisimilahi rahmaani rahim rek daal di ne bisimilahi rahmaani rahim mais bisi tubaab bi ba muy defar kii waxul bisimilahi rahmaani rahim dafa defar oto bi ba pare daal di ko teg. Mm-hmm. yow boo ñëwee nag ci loolu ñu doon wax noonu que ni tubaab yi dañuy defaral ba pare ñun ñu daal di ñëw taxaw daal di ne avec nos bisimilahi rahmaani rahim on peut régler le problème. Mm-hmm. loolu dañuy nax suñu bopp. mais est aussi ne yor naa sama oto romb naa benn policier jàpp na ma ma ma ma graissé ko benn benn téeméer ba benn kii après il va me laisser est ce que loolu loolu la Sénégal def seen bopp moo waral ñu def lu nees ci côté bi. déedéet déedéet c' à dire que. parce que policier bu la jàppee boo ko joxee. benn mille francs trois mille ba mu baax policier policier bu taxaw ñu assermenté la. yow ak sa conscience yéen nekk foofu. yaa ngi dégg. ak eh, suñu policier suñu policier njalaxaan yi est-ce que ñoom aussi. Ah, déet ba ah, policier njalaxaan kenn wax man du ma wax que ñoom ce sont des gens yoo xamee ne. ci ñenn ñi daal euh, euh, loo gis rek dafa am. Eh, eh. dafa am ay brebis galeuses. Hmm. mais dafa am ñoo xamee ne. mais dañ ciy force l'admiration. Hmm. Hmm. parce que ñooñu à fois buñ gis. la nga xamee ne ñu ngi koy def ak ci yu mel noonu wax naa la ko keroog bi ñuy wax ci wàllu magistrat yi ma ne mm-hmm. la daf ci am ñoo xamee ne bu àddina bi bu asamaan si doon daanoo sax duñu ñu ñu nekk ay ripu mm-hmm. du ñu nekk ñoo xamee ne dañ leen di euh, kile chaque jour nga dégg chauffeur yi di wax ci télé bi waaw ah, boo demee ci ak ligne euh, Dakar Kaolack da ngay gis am na benn post boo xamee ne foofu foog jaar joxe 1000 francs pour jàll ak yéeg yu mel noonu mais gis nga da nga fay euh, dañuy wax affaire ba daal di romb fële daal di kii benn yoon la ñuy jékki-jékki daal di exceptionnellement jàpp kenn ñëpp xaw a moytu après ñu daal di bàyyiwaat donc euh, lépp li nga xamee ne ñun dañ ko yi mu nekk ca nañuy takkee karawaat mu nekk ca nañuy euh, dawalee oto mu mel ni na ngay kiyee xoola dangay toog ba si yàgg rek gis euh, gaa ñi di dawal yore yore yore seen téléphone mm. te téléphone mun nga nekk di wax ni ñu daal di ne la sa doom dee na nga tiit mm. dégg nga def musiba def jéye ne France ñi nga xamee ne ñoom ak dëkk yi nga xamee ne dañu jël loi yooyu génne ko mais da ngay toog ba si sa hélicoptère la ñuy jël jël infrarouge di xool leen moo nekk sa biir oto donc dañu dem ba nga xamee ni contrôle bi dafa kile fii nag dañ naan du mujj fenn mujj fenn boobu mooy bu fekkee ne Covid bi yóbbu na dix kii bi daal di yóbbaale vingt trois. Mhm. waaw euh, oto yi nit ñi ak euh, comportement yi ak euh, infrastructure yi ndax fii rek laa gisee autoroute boo xamee ne nit ñi dañuy France boo déggee ne autoroute am na accident dafay fekk. mu am eh, benn eh, waay benn waay ju màndi bu mm-hmm. def benn kii ki yéeg yu mel noonu mais fii doo gis ku màndi doo gis ku kii da ngay gis ku dawa dawa dawa daw ba dugg ci eh, glissière yi daanu ca toj kii bi dégg ma daw diggante Kaolack ak Dakar deux heures de temps ma daw diggante Touba ak kii di kërti kërti nde oto yi dañu neex oto yi moom ñooy gën a daw avion yi mm-hmm. dégg nga te da ngay toog plusieurs jours doo toog sax ba daal di neex xaar tant que gisoo sa pneu di di dégonfler doo taxaw pour ñu daal di ko kii mais normalement oto bu daw 200 kilomètres dem dellu si balaa ngay kii à froid war nga mën na jéem a jël dem ñu daal di la vérifier sa ay pneu ba essieu bu ci nekk bii boo ci defee 2 kilos bii nga def ci 3 kilos mu nekk loo xam ne ne booy daw dégg nga te booy ñëw ci euh, nu mu bu dee permis dañ ko arrangé parce que soo ñëw ci virage boo teggee wàññi tuuti jël virage bi boo demee ba ci digg virage bi bu fekkee ne da nga teggi sa tànk oto bi day def roulotte yooyu yëpp dégg nga dafa bokk ci li nga xamee ni ak euh, di dawal di nelaw di jël distance yi dañu tuuti nii mais gis nga boo defee cent kilomètres war nga taxaw une heure de temps war nga taxaw ci ay voies de repos aire de repos mm-hmm. yoo xamee ni war nañ la mën a permettre nga daal di taxaw xool sa ay pneu mhm. làmb ndax amul bu tàng amul bu kii mais da mhm. ngay gis waa ju toog huit heures ba douze heures yegg Tambacounda mhm. bu taxawee rek dafay traverser Kaolack di ralentir léegi fi mu nekk nii est-ce que ak euh, au delà si li nga xamante ni moom mooy wàllu indiscipline nit ñi mais infrastructure yi nga xamante ne am na euh, pour ñu jeexale loolu infrastructure yi Euh, yi nga xamante ni jafe na ñu am ko visite technique yi bëriwul fi nga xam ne dañ koy defee bëriwul donc est-ce que jotul fi mu nekk ni ñu xool yooyu yëpp pour ñu jeexal li nga xamante ni moom mooy euh, suñu euh, débat du jour. visite technique yi temps yi passé nee nañu da ngay gis yenn oto yi da nga leen di gis tu te man a chaque fois suma ma oto damay xool ci biti bu ma gisee benn oto boo xamee ne même man sax maa koy defal visite technique xam ne kii warul am. Hmm. Ndiaga Ndiaye ñi ngeen bëri te ñoom. E-, existé ci àdduna bi waaw donc yooyu yëpp li ñuy critère ya ñuy at admet daal yow doo ko mën a sax xam dégg nga euh, buñ doon toog nag di jékki-jékki euh, ndaxte ci route nationale yi nii mais boo xasee ba génn euh, ci route nationale bi autoroute bi sax di nga gis dinañu xaw a kii noonu parce que autoroute bi dafa am ay caméra mais boo demee ci route nationale beek yéeg yu mel noonu les camions malien yi ngay gis nii su ñëwee ba ci territoire sénégalais lu leen neex la ñuy def ak lu leen neex lañ fiy dawee te wax naa la ko dégg nga maa ngi euh, rappeler le le le directeur euh, directeur de la sécurité routière ak euh, les force de défense et de sécurité di leen wax nag mais nag fi nekk nii il est temps que ngeen jóg pour daal di sensibiliser nit ñi ci lalure tu la vitesse tu dégg nga vérifier mun nga sax mun ngeen sax di jàpp nit ñi arbitrairement pour que ñuy wàññi allure bi da ngay gis ku ñëw ba bugg la mbëkk daal di romb fële daal di géeg yu mel noonu institut te doo xam nu affaire bi demee mm-hmm. alors c'est des choses yoo xamee ni gis nga comme ni ñuy wax rek moralité mooy di toog di dénoncer du régler dara il faut que ñu daal di redéfiniraat comportement yi nee naa la la soumission à l'autorité loolu laa koy wax moo di que ni gouvernement bi am nañ président de la république président de la république c'est lui qui décide léegi tant moom mënul yaakaar ni les docteurs les chercheurs ñoom ñoo war a mën a jël situation bi au détriment de la euh, du gouvernement boo xamee ne ñoom amuñu les compétence di ko wax lan la war a def état d'urgence boobu mooy wax yooyu yëpp du mujj fenn Euh, nu mu tuddati guerre sanitaire ba mu doon wax booba ministre yëpp dañu effacé wu euh, docteurs yi lañ doon kii waaye affaire ba fan la mujjee ay euh, ka jiite woon yëfee sax bu waxee ñu saaga ko foofu ngay xamee ne ne vraiment le peuple dañu découragé mmh. ki lay sauvé ki lay wax bu waxee nga saaga ko voilà donc ki lay wax bu la waxee nga saago je pense que on doit être conscient de ces choses mu nekk euh, loo xamante ni daanaka euh, ñëpp ñu ngi koy bàyyi xel mu nekkoon tey seen euh, deuxième numéro bu seen émission actu réew mi donc xanaa rek nga jeexale sa dernier mot ak message bi bëgg bi nga xamante ni suñu ndaxa joxe na ko ci bis bi nga xamante ne dañu ko defal démb muy bisu xasida yi xam nga dafa am lenn loo xamee ni keroog ci suñu waxtaan dama la wax ne la. gaa ñi dañu fàtte yàlla ci mbir mi mais sëriñ Muntaxa góor googule war nañu bàyyi xel bu baax a baax a baax parce que dafa mel ni dañ koy déy dafay mel ni du moins parfois man sama sixième sens intuition yi muy kii dafay mel ni dafa am loo xamee ne divinité bi dafay taxaw ci kii yooyu mënoon na toog ne nañ leen jàng alxuraan waaye waxul loolu de dafa ni nañ leen jàng ay xasaayit xasaayit yi ngeen gis nii ñu koy teg nii dafa am secret bu wér bu nekk ci biir xasaayit bi mm-hmm. am na Coran c'est c'est la lecture simplifiée du Coran secret boobu nag mm-hmm. foofu la jaar dégg comme nam ko waxee woon sama boroom xamal na ma ne naa def lii ma defaat lii su ma ko defee ba pare mm. dégg nga mu daal di ne wàccoon na man ah, sama borom nee na ma wàccoon ak moom léegi mu ngi xaar décision boromam mm. ñëw na ci xasaay di wax ñu ko daal di ne ñu te ba muy kii dafa ne nañ ñaan yàlla taw bi ñëw mm. nga xamee ni euh, kooku du nit ko ordinaire moo war mooy lay wax loolu taw bi na ñëw mbas mi nañu ci dindi la ko suñ borom wax ak sëñ Tuubaa def na ko fi mu nekk nii day xaar rek conséquences yi dégg nga yàlla daal di ñëw rek accéder à cela dégg nga accéder ci ñaan bi nga xamee ne moom lañ doon ñaan. Mhm. ndaxte mënoon na jaar ci biir alxuraan génne. Mhm. ñaan ba mu war a ñaan. Mhm. waaye daf ko jaarale ca. Euh, use sew yi nekk ci biir. yi ñu dëxañ ci biir mais est-ce que <laughs> message la lancé euh, sénégalais parce que dañoo. wax naan mooy loolu dañ naan rassemblement mu mu mu ñëpp Touba. waaw am message bu mu lancé foofu mbas mi pour wax la leen ne. c'est juste la la moo mun a jëlee mbas mi. a jëlee mbas mi mooy li ma la doon wax keroog rek. ba pare te léegi dafa dem ci secret yu nga xamee ne ñu ngi nekk ci biir xasaay yi fa la ko jaaree. donc ça veut dire aller vers les xasaay parce que lépp mi ngi mi ngi ko amee foofu. ba mu ko defee ba pare daal. fi mu nekk suñ boroom la ñuy déglu. Mm-hmm. kon ñu ko waxee luñ ci góobee gar ko. luñ ci góobee rek gar ko. daanaka comme wóor na ko ne. Mm-hmm. góob na ba pare. Mm-hmm. gar bi moom du doon problème ndaxte suñu borom dina nangu lim ko neex waaw di ñaan yàlla kon li nga xamante ne ñaan nañ ko ci euh, bis boobu suñu borom euh, nangu ko euh, ci li nga xamante ni moom mooy mbas mi ak ndox mi nga xamante ne ñaan mu wàcc ci biir réew mi donc monsieur Jean Fall ma lay jaajëfal rek saa su nekk ñuy bokk plateau bi di wax ci mm. wàllu actualité biir réew mi et c'est un plaisir à chaque fois ñu koy ñu ñu koy bokk donc plaisir la aussi di jaajëfal sama technicien yi Malick Mo donc voilà leen jox di daje rek donc semaine prochaine ci yeneen actualité actualité yoo xamante ni moom moo ñeel biir réew mi si seen émission actu réew mi ma ki bokk saa su nekk ak monsieur Jean Fall ah, donc euh, mi ngi doon kon seen émission actu réew mi euh, la semaine prochaine ci yeneen sujet ak yeneen thème jërë ngeen jëf